jërë ngeen jëf bokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo di siyaare di sant suñ boroom subhaanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngi sant sëriñ Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal bu baax sëriñ Serigne Modou Mahfouz mi nga xam ne moo toog a jotaayub Serigne soxna Maymunatu Mbakke ak njaboot gi Serigne Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Astu Mbakke su ngeen gisee jotaay bi nag. xam ne bis bu mag jub na bu ñuy waajal muy laylatul xadar di bisub soxna may Mbakke moom Serigne Touba waaye nag bis bi ba mu daan ñëw dañ ko daan waajal lam gën a bëgg muy setal Touba moo waral nag ci jataay bi Serigne Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne Serigne bay saar na ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo yore liggéeyu mbale ci Touba ñu taxaw fi bis bi woote ko ngir ñu waajal mbale mi setal kër yi setal dëkk bi ba bu gan ñi ñëwee ci bis bi sun borom dogal lépp set ndax bisub sëriñ Touba bisub soxna May dëkk bi daa war a set néeg yi set kër yi set. bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di ci barab bii nu leen daan nuyoo ci waxtu yi ci jamono yii ci bu Laylatul Qadr dee waaj ñëw ci kilifteefug sëñ Mahfouz mii nga xam ne moo toog toogaayu soxna May. ànd kook ay jarbaatam yoo xam ne yu ko déggal lañu coordonné ki nga xam ne mooy coordonné mbirum gam màgg Laylatul Qadr gi di sëñ Cheikh Abdou Bali ñu di ko Cheikh Abdou Ba Gaynde Fatma ngeen gis bu waxtu mosa ñëw la ñuy jiital ci waajtaay wi mooy waxtaanee luy tax dëkk bi set ca ñu tàmbalee fii ci kër gu mag gi ak pénc mi ak armée Daaru Xuddus ba asalem loolu nag moo waral mbooloo mi ngeen gis mbooloo mi nag ni nga xam ne noonu lañ ko daan ànd sëñ bi noonu loolee la sëñ bi séenu ci ñoom ba tax mu déyeen ci soññi muy pas-pas boo xam ne dafa nekk ci kanam waaye moom ñoom ñoo bokk pas-pas bi kon nag ana lu mu ciy def weesu wut fàttali leen bis bi ak xamal leen bis bi ma bokk ak yéen mi ngi nii nun mi nga xam ne nag yàlla baaxee na nu ànd ak moom ci bis bi gis nañu ne la mu ciy jiital mooy lu ñu jàpp ne dana jagal bis bi buñ ko ci ñooru nañ ko ko leeral ca bis bi tax koo jóg bala ñu àgg ci bis bi mu duggum noppam lenn lépp dana yemb ana lu cay des nag kon lu cay des ci nun lay desee nun mi yor mbooloo yi leen sëñ bi sàkku ci ñoom kenn ku ci ne boo demee nanga nga soññi ci mbooloo li ñuy sàkku nag nun mi ma ci yéen ma di leen ko dagaan nañ ñaanal sëñ Modou Mahfouz ak njabootam soxna Astou Bali ak Cheikh Abdou Mbacke sunu borom yàggale fi see dëgër seen taxawaay ba lii nga xam ne moom la di seen soxna May daan def muy laylatul xadar so so so soxna Bali nekkan fi daan ko def di seen wayjur àndal ko uh, sëñ Mahfouz noo yéene jooju ci aman mottali yéene soxna May ak jublu ci liggéey Serigne Touba yéene jooju rek moo wóotu ci ñoom te ñu may sàkku ñu ñaanal leen ñu sut leen fon ba mën a mottali yéene ca so dolli seen kàttan mbokk yi su ngeen déggee sunu kaddu fi saalu bi si kër Soxna Maymunatu Mbàkke kenn ku nekk di nga war a xam lan moo tax sunu kaddu jóg muy bis bu màgg bi nga xamante ne mooy dëgmal te muy bis boo xamante ne àddina képp saa bu dikkee xel dina dellu si soxna su sell soosi di Soxna Maymunatu Mbàkke muy laylatul qadar te xëy na mooy li sunu borom doon wax naa xayru na alfi sahri muy genn guddi gu gën junniy guddi yàlla jagleel ko soxna may mu am ci tur woo xëy ne kenn amatu ko ci. bis boobu nag saa buy jub lenn lu si nekk dafa am lu mu aajowoo dañoo war li nga xëy ne mooy dëkkab Tuubaa bi rawatane kër soxna may gi ba asalem mboolo yi nga xëy ne dañ fi dikk buñ fi dikkee fekk dëkk bépp set wecc ba kenn du si am bant boo mën a secréto loolu nag Sëñ Tuubaa am na ay taalibeem lee saa bu dajee nag dinañ am ndigal lu bàyyi ko Cheikh Mourou Mahfous ginnaaw bu mu jógee Cheikh Mourou Mountakha mi kilifa gi ak mboolem ay rakkam wàcc si mboolem jëwriñ yi nga xamante ne ñu ngi leen di bëgg a ñu daje fii saal bi nas ko wax ko ñëpp dégg ko ñu woote ko bu ñu àggee sa bis ba euh, sëñ bi amee ko na mu ko bëggee loolu mooy insha allah rabbi dimanche tey jii ñu toog bu dellu si waatee ci lañ am pas-pasab àndandoo ak mboolem fu ab taalibe nekk seetal dëkkab Serigne Touba bi ngir waajalee ko bis boobu nga xamante ne moo di laylatu xadar wattaay woowu nag du ñu bàyyi fenn du ñu bàyyi kenn du ñu bàyyi ñenn ñëpp la ñu woo ko di taalibe te gëm Serigne Touba ñu ngi lay woo ci liggéey boobu waaye rawatina jëwri ñi ñu bëgg a tudd suñu tuddee ku toll ne soxna Astu Mbacke kan sul muhtadin muy jenn jàmbaar joo xëy ne di doom ci Cheikh Abdou borom dër bi waaye ñu tudd ku mel ne tey jii soxna maam Issa Mbacke ahlu ak soppe maam Cheikh Ibrahima fal ak tudd ku mel ne wilaaya murid wadd si gaar bu ndaw ak mbooloo mi mu jiital ñëpp tudd lu mel ne wàccaayu màggalu Touba tudd lu mel ne Gédé day mel ne Touba gépp daje si nañu ñoom ñëpp tey jii ñu ngi ci biir salle bi kenn ku si nekk boo mën a jël kaddu di nga jël kàddu waaye li si ëpp solo mooy mbooloo mi ñu xam ne du mbooloom daayira la wala mboolem fédération la mbooloom Serigne tubaa la moom la Serigne bi woo kon foo waay nekk tey dund Serigne Touba te xam ne Serigne Touba rek moo la ñor te bëgg a barkeelu si bisab Laylatul Qadr bii boo ëllëgee lu si soxna may di fayee nga bokk ca loola ñu ngi lay tàllal loxo di la woo dimanche incha allah rabbi huit heures mooy li gën a teel ci woote bi dañoo bëgg ku man doon nga am pas-pas di liggéeyal ci Serigne Touba sept heures na la fekk fi su nun ñi féete fii waa Gede moom xam naa six heures fekk ñu nekk seen liggéey incha allah rabbi waaye nun ñi fekk si kuréel yooyu ma tudd mooy Mamor Wade soxna Asto soxna maam Issa kuréelu soppee maam Cheikh Ibra Fall ndaam ñes ñoom ak daaru Xudus nun ñëpp na nu fekk ñu taxaw moom ci liggéey bi ànd kab yoo di liggéey balay midi liggéey bépp ànd sottandoo loolu mooy li nga xamante ne mooy bëgg-bëgg soxna si mu mel ne weeru koor lañ nekk ab soññe mënu sa ñàkk bu kenn ne weeru koor bu kenn jàmbar xiif dinaa wax ne weeru koor nun murit kenn wuri see jàmbar dara ndax bu nu seetee Serigne Touba lam fan weeri fan la weer te mos la gis lu ci tàkk xobi garab coocu loolu moccati ko di ko doge di ko xëddee kon buñ dee roy ci moom di ko liggéeyal te badral kufra itam ci weeru koor wi la amoon te kenn musu deltu ginnaaw kon bu fekkente ne dañuy liggéeyloo mu murit te sunu lépp nag ñu bëgg koo jox Serigne Touba nag ci weeru koor waruñu see jàmba dara lu may sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee bu sëñ bi amee li mu bëgg nu am li mu bëgg ñun waa kër Serigne Touba daje gii fi daje ci ndigal lu ànd ak xol yu sedd ak xol yu yaatu am pas-pasu li nga xam ne bii ne dañ ko daan def ba mu agsiwaat tey namboon nañ ko daaw ndax daaw dafa meloon nag xawoon naa sooxe waaye nag bi ndigal li desiwaatee nag te nga bi nag ànd naag jamono ji nga ni ñu ko bëggee noomaat poste bi di soññi nag mboolem ko di murit di mboolem waa Touba ak képp koo xam ne bi ne da nga dëkk ci ñi nga xam bi ne mooy Gede ak asalem man Talla Diop maak sama jëwri ñi nga xam bi ne Birane Seck sama mag maa ngi koy woo moom itam teewal naa ko fii ak Mbaye Fall ñoom sama doom yi nga xam ne bi ne ñu ngi sama gannaaw noonu jekk nañu dis nañ la nga xam bi ne dem nañ wala nañ ko suñu bopp lu jiitu tey ba xam lañ fa soxla mu dañ fas nañ yéene buñ ca àggee dañ ko fas yéene teel a dindi te duñ ca kenn moom kay ku ni jàpp jàpp naa ne toog ca kër waaye fas nu yéene nga defal fa dara nun am na pastif boobu soo ñu leen jigéen ñi soo ñu leen góor ñi jigéen ñi ak gone yi avenir Touba la ñu bëgg naa lu bare bari naa nu xam ko ndax lépp loo fiy def jigéen ñoo gone ñoo si mën ñëpp te bu bis waaye ku dikk li ma wax ko gis maa ngi soññi sama mairie ga yi Anta Kan ak ñi mu ñëpp di soññi Mbaye Fall mi nga xam ne bi nag moom mooy jëwriñu gone Xaarim Jóob maa bëgg ngi nag seen laxasaay na gën a dëgër te ñu teel oto yi na teel a ñëw liggéey bi ku yow sept heures sept na fekk ci yoon wa ndax noonu bu amee oto bu ñu yóbbu dañuy dem bu ñu bu ñu yóbbu dañuy dem ndax noonu ci suñ daanaka suñ kër la ñuy tàmbalee ndax foofu lañ dëkk maa ngi woo ñëpp di soññi ñëpp man nag lu waay teel teel xëy da ma fa fekk lépp loo xam ne bi ne mooy leen sëñ bi sant daal fas naa yéene daal bala na waxati dara dañ ko defal sëñ bi ba noppi di ñaanal nag soxna may mi ko fa indi ak doomam jëm fi ba woon mi soxna baali ba mu fekk ko fa moom tam taxaw na ci taxawaay ay ne ba nekk tey mujj ci loxoy sëñ Mouhamadou Mahfous ak doomam Cheikh Abdou ak soxna Astou yàlla yàlla guddal sii di fan ngeen sut mag ay fan te liñ fi bawoon yàlla na gën a rafet ci tey bi nga xam bi na mag ñi dem nañu loolu la leen ñaanal àndandoo ak yéen nag noonu fu ngeen woon wuy leen wasalaam su ngeen déggee sama kàddu gi nag ngeen xam ne ndigal jot na waaye nag jëfe jariñu la ana loolu mooy lan mooy bis bi nga xam ne mooy bisu laylatul xadar te soxna Maymuna di ko woote yàlla dogal nag ren ji ñu jàpp ko fas yéene tàmbali nag li nga xam ne mooy setal dëkk bi ngir waajal bis bi muy mbale mi ñu fas yéene koo def dimance incha allah loolu nag maa ngi yëkkati kàddu gi di soññ sama bopp ci turu Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu kuréel wàccaayu mbali màggalu Touba waaye ci tam ci ndigalal Baye Cheikh Ndam Murit mi nga xam ne nii moom itam conseil la ci biir liggéey bi di soññu ñi nga xam ne ñu la bokkal liggéey bi yëpp soxna Mbacke Dieng mi nga xam ne moo jiite soxna yi soxna maam Anta Jaxate soxna fan Ndiaye bëgg fàllu ak soxna Koppe Seen ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ ak kuréelu mbale yi nga xam ne ñi ngi ci diggante daaru nam xayra daaru Tansir ak daaru Sow bàyyiwuñu kenn na ñëpp waaj dimanche ak jàmm bu kenn ne yëguma na ñëpp waaj ba jekk bu dimanche bu kenn toog di xaar oto ku xëy sept heures na nga jubal si fii ci kër soxna may soxna may gi nga xam ne moo nekk ci biir ci ci jumaa ji ku xëy na nga jubal si foofu boo ñëwee kuy ñëw itam na nga àndaale sa jumtuwaay booy liggéeyee moo xam bale nga yor moo xam tame moo xam ratu moo xam lé loo loo mën di liggéey paan la wala si woo na nga ko àndaale nun ñëpp ñu maasee ñëw ànd ci liggéey bi fas yéene koo def ni ko sëriñ bi bëgge ndax suñu njariñ dong la ñu bëggal kon nag ñi ngi soññ ñëpp képp ku bokk ci kuréel wàccaayu mbale màggalu Touba foo mën a nekk tey dégg suñ kàddu gi ñu ngi lay soññ ne la xamal ne am nañ ndigal daal loo xam ne fas yéene nañoo tàmbali liggéey bi dimanche ak jàmm na ñëpp teel a génn wasalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi jataay bii ñu toog tey dafa mel ni du tey rek waaye lu ñuy baamuwaat rek la waaye lépp mu doon lu nga xam ne dafa tukkee ci ndigal lu jógee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu di ko ñaanal bu baax yàlla guddalu fanam wérali cëram suuxat yéeneem dolli koo defal tawféex ba lépp lu nga xam ne bëgg na koo liggéeyal maam ju tedd ji ak kilifaam yi fi bàyyi ko ñu di leen ñaanal yàlla taxawu ko ba loolu lépp mën koo mottal te ñu àndante ko noonu ma ko junjee kon muy ndigal lu nga xam ne dafa tukkee ci moom ma Cheikh Mamadul Muntaxa jaare ci sëriñ siidi Abdoul Ahad mi nga xam ni mooy jëwriñam wande jaare ci sëriñ ahmadou maxtaar mi nga xam ni mooy xalifab daaru xuddus wande wàtt si sëriñ mouhamadul mahfous mi nga xam ni moo toog toowaay soxna maymun may maymunatu bintu xaadimu rasul di soxna si nga xam ne nii ko sang jaañ waxe léegi mooy ki jëmmal laylatul xadar guddi yonent boobu di genn guddi gu fay junniy guddi mu am liggéey bu mu ci daan liggéey liggéey bu am solo mooy màggal guddi googu wànde lépp mu jële ko ca ndigalul waajuram la wànde ca magam yu tedd ya di Cheikh Mamadou Fadal ñu gis ni mu ci daan taxawee wande ginnaawam njabootam gi taxawee ko bu dara manqué wul waaye lépp ci ndigal kilifa yi tuubaa rek loolee nag tolluwaat nañu ci waxtu wu nga xam ni soññe ba ñu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma mi nga xam ni mooy coordonnateur du comité d'organisation wu laylatul xadr soññe boobee mu jógewaat ci moom ba daanu si ci ñun jataay bii ma ak jëmm yi nga xam ne ñoom laa ko bokkal muy ñi nga xam ne bu ndigal li ma saana jóg ba ñëw sëriñ Cheikh noonu la may soññe ñu bokk soññe ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo yëngu ci wàllu lépp luy seetal dëkk bi te loolee la mu ci junjoon keroog sëriñ Cheikh Abdou Latif mi nga xam ni moom la sëriñ Mouhamadul Mountakha jaarale ko ci sëriñ Cheikh Bass mi nga xam ne mooy président bu comité d'organisation màggal gi ak sëriñ Cheikh euh, Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy coordonnateur bi ndigal la daan jaar ci ñoom jëm ci lu mel nii loolee tamit keroog sëriñ Cheikh waxoon na man loolee nañu ko baamuwaat noo ne wax ni ndigal li liggéey bu toll nii bu toll nii ne ko sëriñ bi defee noonee la ko jaar latif sëriñ Cheikh Abdou Latif bëgg taalibe yi àndante ceeg moom ba népp lu ko sëriñ bëggee ñu matale ko noonee loolee moo waral jataay bii nii mu xajame nii mu xumbe ndax képp nga xam ne association nga wala nga daayira ci dëkk bi ne ko sëriñ bi woote woon keroog àllarba ñoom ñëpp teewoon nañu fi mébét ya ca jëm ak xalaat yëpp tamit tënkoon nañu ko mu mel ni tey jii li mu ñu sañtoon mooy ñu bokk toog soññewaat ci suñu biir wante soññewaat kuréel daayira yi soññewaat association yi soññewaat mbootaay yi ak chauffeurs yi ak transporteurs yi ba nii ko sëriñ bi bëggee mu ñu seetal dëkk bi ngir waajal guddi googu di guddi laylatu xadra di yemook le 28 ci ci ci ci ci ci weer wii ren di weeru weeru avril nañu fexe ba bala ñu cay àgg di dimanche yi tey jii bu dellu see yemook le 24 avril nañu ko daan defe ñu defe ko noonu balee dëkk bi ba mu set wicc loolee nag ni ko sëriñ bi santaane mooy nii ñu ko daan tàmbalee fii ci pénc mi ci Touba Mosquée Kër Soxna May marché Ocass gaar bu ndaw wande jaar ci barab yi wàcc ko aynu dugg daaru xudóos wande kër sëriñ Touba yi wër fii muy kër Cheikh Mamadou faadal kër sëriñ Abdoulaat kër gu mag gi kër sëriñ Cheikh Gaynde Fatma kër sëriñ Abdou Borom Dër bi euh, kër sëriñ Saaliw kër yooyu yëpp kër sëñ Daamata buñ ci tëb genn na ma ko daan santanee dafa bëgg loolee ñu seetale ko ndax foofu fépp guddi laytu xadar fépp ay gan lay doon bis boobee ñëppay ñëw Tuubaa di ko màggal kon bu ñu romb dara noonu la ko sëriñ bi santaanee bu ñu jógee foofa nee na noonu la ñuy toppee tali belel bi ba daanu ji HLM wante loolu ci wàllu organisation bi ni ñu ko xalaatee ak ni ko sëriñ bi santaanee mooy kuréel yi nii ñu daje ci dëkk bi muy waa daaru minam kuréel wàccaayu mbale màggalu Tuubaa ñi ngi nii teew danañu ànd ak soppee sëñ Basiru jógee daaru minam waa xaayira ñu ànd ak ñëw ndax sëñ Cheikh Ndaam Ñas ñëwoon na wante Mbóoj Ñas a ngi ni ànd ak Aliou Diouf euh, bu ko defee waa wilaya Ibra Kane ñoom a ngi ni ak Daam Loum sëriñ bi soññ na ñu soññ lépp lu aju ci ci ci ci ci wilaya jaarale ko ci sëriñ Abdourahmane mu jaar ci sëñ Cheikh Diop mi nga xam ne mooy président d'honneur ba ñu soññ ñëpp ku bokk wilaya ba bu bis baa buñ ca yeggee ñoom ñëpp nañu teew si fii ci penc mi àndanteeg mbooloo mi euh, waa gaar bu ndaw Mamor Wadd ngi nii mi ngi nii toog moom i tamit gaar bu ndaw Touba moske di yóbbante ci sëñ Xaadim Saam noonu la ko sëriñ bi santaanee woon moom tamit soññ ko wanle sant ko euh, gërëm ko ci ab taxawaayam ci lu mel nii noon ni mu ñu soññe noonu la ko soññe moom tamit ba kuréeli daayira yi féete foofu ci gaar bu ndaw Touba mosquée yëpp ñoom tamit ñu xëy si fii ci béréb bii kër yi fi nekk yëpp ñu wër ko àndante ko bale ko wande yëmul ci loolu ndax la aju ci Touba HLM gis nañu ne Ablaye Kébé ni toog mi ngi ànd Euh, Serigne Gadiaga ak ñoom Mame Mor Thiam nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Daaru Minam Daaru Manaan Bousso waaw ñooñu dafa bëgg ñu ànd ak Abdoulaye euh, euh, Talla Diop mii nga xam ne ñoom ña nga gede wande ñoom Abdoulaye Diop ñoom Abdoulahat Loum Xaadim Diop ñoom nga xam ni mooy kuréeli mbale ya nga xam ne ña nga nekk foofe ca Touba Gédé ak ak Gédé Bousso gépp ñoom nañu àndante ak waa Touba HLM ak euh, euh, euh, waa corniche belal àndante dem ci kër soxna may ga nañu ko tàmbalee ca tali belal ba wande lépp lu wër ci kër ga bu ñu fa bàyyi dara nañu ko bale ba mu set wicc nañ ko daan defee loolu taala jóoba ngi nii wax na ko léegi wande rafet nañ njott ci ndax mi ngi ànd ak ñoom ñoom mbay faal ñi ñoom tamit teew rafet nañ njott ne nañ ko daan defee danañ ko defee ni ko raw ndax ñoom daan nañ teel a fajaru teel faa xëy ba bu ñu fedee yegg waxtu tàkkusaan di yewi ji dañuy fekk luñ fa war a def def ko te noonu la ñuy yeesalaat seen pastéef ak seen pas ñoom ndigal la noonu la jógee noonu la duggee ci ñoom te it lañ koy defee ku ci mel ni ñoom bàcc seen muy daayira yeeg kuréel yi nga xam ne ña nga ca Touba euh, ca ca ca Touba jéemul ànd ak Cheikhouna Guèye ñoom ak Mor Mbaye ñoom ñoom aussi seen kaddu keroog ñëw nañu réunion tey ji aussi yëkkatiwaan seen kaddu nañ ko doon defee danañu teel a ñëw si waat fii ci pénc mi niñ ko àndante woon àndanteeg mbooloo yi nga xam ne ñooy départ fi ñoom tamit nga xam ne lépp lu fi war rek ci pénc sëriñ Touba yi moom nañ ko daan bale noonu la ñu amee pas-pas ak yéene ni ko sëriñ bi bëggee ñu matale ko noonee ba ba ñuy yegg HLM sëriñ bi fekk ñu fa yeewi ñu noonu la fa sëñ Modou Mahfouz daan toogee ginnaaw tàkkusaan wax dëgg yàlla sëriñ Cheikh Abdou Bali ñëw bu ko defee ñu ñaanal mbooloo yëpp ma am nag ci ku may taxaw muy soxna Astou Mbacké moom sëñ Abdou borom dër bi kooku sëriñ bi moo ko tànnoon defal ko boppam jëwriñu liggéey bii noona la yebale keroog àdduna ci yebal na euh, Malick Sarr a ngi nii Modou Boussa Niass ñëwoon na keroog wanne noonu la soññee kuréelu Kansul Muhtadina gépp ak njabootu sëriñ Touba yu jigéen yëpp àndante ko ak soxna maam Issa kafe sang ngi nii ñoom daam léegi lañ fi jóge dañoo dem di togg yi ndogu wànde ni ñu fi tooge woon keroog ni lañ fi tooge waat tey jàpp ndigal lii seen mbiri bopp soññ nañu taalibe yëpp waa ahlu kafe gépp soppey Lamp Fall yëpp Euh, Matlabul Fawzayni set setal sëñ sëñ sëñ Abdoulou Ndaam sang jaaja ngi ni yëkkati ne kàddu soññe ci ñoom ñoom ni ñu daan àndantee nga xam ne ëtti sëriñ Touba yi ajjuma ju jot sax noonu lañ cay taxawee noonu la ñu gën a yeesewaat takkaat seen laxasaay ne bis bii moom seen bisu bopp la nañ ci daan taxawee danañ ci taxawaay danañ ci taxaw taxawaay bu raw euh, bu nga xam ne noonu lañ ci daan taxawee kon loolu yàlla def na ci tawfeex rafet nañ ci njort ñeneen ciy desit soxna maam Bousso moom tamit duñu ko fàtte ndax waa Daaru Xuddoos ku ne xam na ni sëriñ Cheikh la Lahad lañ bokkal baay kenn du des ci ndigalul euh, sëriñ Ahmadou Makhtar jaar ci sëñ Abdourahmane waaye njabootu daaru Xuddoos gépp képp ko dib daayira ndigal li nii ñu ko santaane noona la demee foofee te noona lañ koy jàppeek kon loolu xam nañu ne ndigal lu jóge la ci sëñ ba la te taalibe yi moom wax dëgg yàlla na mu jóge ci sëñ bi ñëw ci ñoom noonu la ñu ko fas yéene jëfe kon daal euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Modou Birame Diop ñoom a ngi nii ñoom Pape Niass ñi nga xam ne conseil euh, communal de la jeunesse la ñoom aussi seen takku ku ne xam na ko keroog ñëwoon nañu tey jii si Modou Birame mi ngi toogaat toogalaat léegi nag ci li ma jëm rek mooy taxawaayu commune Touba Mosquée ci turu Serigne Abdou Lahad Ka Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma suñu jëwriñ doon suñu sëriñ ñu bokk institution boobee commission bi nga xam ne moo yor wàllu mbale mu jiite ko maa ngi morloo mu féetale ñu ci bàyyi ñoog lépp. wax dëgg yàlla ci ak doyloom wante nag lépp ci ay xalaatam la ñuy doxe guddeeg bëccëg ci ay ndigalam la ñuy doxe guddeeg bëccëg mbir mii bi mu jub see donte lu mu ca nekk daf maa sant sant muur ne ma lépp lu cay war ca wàllu woowu ci lu ñuy jokkoog maire di ko wax nañu ko ko waxal noonee la ñu ko defee lépp lu ca commune bi daan taxawee dana ca taxaw taxawaay bu raw ba mu ca daan taxawee sëriñ Abdou Lahat àdduna ca loolu moom mi maire commune bi fekk si na sëriñ sëriñ Cheikh Abdou mii mu bokkal liggéey boobee wànne bokk ak moom ndigal lii muy taxawu laylatul xadar ji ba lépp lu ca war ci engagement yi nga xam ne commune bi daan na ko engagé loola bu soobee yàlla maanaam déjà loolu moom acté na ko ñu yegg ca nañ ñu jox lii nañ ñu def lii loolu rek a ca def te lool moom na ci xel dal ka ni lépp matale na ca wàllu woowu beneen bi ci des tamit mooy UCG nga xam ni mooy kuréel gi nga xam ne moo fi nekkal état bi di saytu mbale mi ci njiitul Serigne Ibrahima mbay wande àndante ko ak ku ci mel ni Pape Ndiaye àndante ko ak Cheikh Mamadou Moustapha Gaye ñu nekk fi di ay jëwriñam ñooñu aussi disposition ya war ci lu ñu war jël lépp ci lu jëm ci mbale mi ak màggal gi loola moom déjà jël nañu ko depuis keroog bi leen ko sëriñ bi santé man mi jokkoo woon na Ibrahima Mbaye ba démb dong Ibrahima Mbaye jokkante waan téléphone lépp jëm ci ba lu ci jëm yemb na maanaam camion yi ci jëm ak mobilisation bu mbooloo ma nga xam ne ay agent la yun fi yabal war a yebal loolu tamit dara du ci manqué ñoom instruction yéen leen jox sax li féete ci penc mii nañu ko àndanteeg taalibe yi ak logistique ba ñuy indaale ba lu fi nekk ci mbalit ak désensablement ci tali yi loolu lépp nañu ko àndante def ko kon daal ci gàttal loolu daal mooy ndigal li nga xam ni euh, sëriñ bi waxoon na ni nañu ko jottali bokk jullit yi jottali ko bokk taalibe yi kenn ku ne bay ci yéeneem ñu bokk laxasaayuwaat ba lii nga xam ni daal ndigal la lu jóge ci Cheikh mun Mountakha jaar ci jëwriñam yii ma leen wax ba nii mu ñëw ci sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma mi mi mi mi coordonnateur liggéey bi te mu sant ñu ñun ñii mu bokkal liggéey bi ne ñu ko daan defloo mu defloo ñu ko mu mu euh, yeesalaat ko euh, ci ñun ren ji nañu ànd daal ñaan yàlla defal ñu tëw tawféex yàlla dolli ñu man tëbb ñu kàttan ba ni ko sëriñ bëggee ñu taxawee ko taxawaay bu nga xam ni dana dana dana dana dana dana romb fa nga xam daal fa lañ ko yaakaare loolu daal moom la ñuy ñaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu ngeen déggee soññe yi mel na ne jëwri nii nga xam ne ñoom la ñu baaxoo ci lu mel nii lépp tudd nañ leen waaye sëriñ bi nee na mi ngi wool boppam soxna waalo mbakke bugguy mbind ak sëriñ bay sekk ñi nga xam ne ñooy jëwri jëwrini fédération bu sëriñ baara ndax moom lépp lu muy wootee njabootug sëriñ baara kenn wur leen caa jiitu kon soxna waalo sëriñ bi nee na mi ngi lay soññ ci mbale mi nga soññaale waa fédération sëriñ baara bi sëriñ bay Sekk ñoom yore ko ak mboolem njabootu sëriñ baara gi nekk guy mbind gépp waaye muy wax Abdoulahat Ndiaye ndi gone kër gi ak sëriñ Mor Lo ak sëriñ Fallou Dieng nañ soññ ñoom it gone yi nekk seen ginnaaw ñoom ñëpp ñu maase àndandoo ngir liggéey bi sunu xëyee kenn ku ci nekk am na loo mën a jàpp di dolli soññ bu baax waa wilaaya comme ni ko sëriñ Aliou Niang waxee ci turu Serigne Cheikh Diop Kellel waaye di soññaale waa Kellel ak Nayde ak mboolem fu ahlu wilaya nekk te xam ne jëwriñ Serigne Cheikh Diop nee na ñun ñëpp nañ ñëw ànd ak Serigne Cheikh Abdou Lahad ci liggéey bi ngir liggéey Serigne Touba la te ku ne liggéey Serigne Touba tudd wilaya ku ne wilaya sakal dem ci liggéeyal Serigne Touba. waaye di soññ nag mboolem kuréel yi nga xam ne dañoo ne ci biir Touba kuñ ci tudd ak kuñ ci tuddut ñëpp ñu ngi leen di soññ ci liggéey bi te xam ne liggéey bi yàlla la liggéey Serigne Touba la Serigne bi daa waxoon Euh, liggéey yàlla mënta feesu setal Touba kon ku yàlla dimbali nga bokk ci ñi ñi woo ci ñiy setal Touba na sam xel dal te nga sant yàlla te xam ne mënutoo koo fay kon ñi ngi soññu Serigne Pape Niass mi nga xam ne moo yore xale yi xale yi Touba yi di président bi ñu ngi koy soñ ak mboolem jeunesse su Touba bi yëpp di wax daal dimanche lay doon incha allah huit heures fii ci buntu kër Soxna May huit heures fee ci buntu kër Soxna May ci HLM fekk liggéey bi yëpp tàmbali balaa mi dee jot lépp noppi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu